Euh, ñëw ànd euh, pour jàppale Ndeye Saly Diop Dieng suñu ministre waaw loolu mooy sama teewaay fii. ñu gisoon démb kii di euh, Ousmane Sonko génn ne lii di pacte de paix boo xam ne gouvernement bi moom la woon du ko signé loo gisee kàddu waaw loolu moom en tant que jeunesse moom ànduma ci parce que la paix moom pour ñëpp la loolu moom kenn àndu ci. d' accord ma foofu waaw. Ah. démb ñu dégg ne ñu naan kii di président Macky Sall nekk seen leader ñu naan président Macky Sall dee na suur ko. waaw loolu moom du yoon parce que Macky président Macky Sall c' le père de la nation kenn waru ko wax loolu budul dara dara respect. waaw lu mu métti métti mooy suñu président nañ nangu rek li yàlla dogal waaw ah, kañ. salaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam. Euh, Salamata Ba. Salamata la ma waroon tey fii sa teewaay euh, suñu teewaay bi mooy ñëw rek ànd ak euh, suñu ministre de la femme. de la famille du genre et de la protection des enfants madame sociale ñëw rek mobiliser jigéenu Sénégal yëpp mobiliser ñëw nekk ci gannaawam. pour ñëw investir ko te xam ni mooy mooy sunu mooy mooy sunu marraine macha allah. dem ñu gis ñii di waa yow seen yow askan bi génn ne kii président Macky Sall génn suul nañ loolu ngelaw la président Macky Sall mi ngi dund day dund tey dund suba dund gannaaw suba local yi ñëw ñu yëkkati leen ba ci kaw def nañ leen seen yaram yee xasan ñu leen dellu ci suuf. ñun waa Benno Bokk Yaakaar. gis nga kii di Ousmane Sonko génn démb tamit ne pacte de paix boo xam ne gouvernement yi moom la woote moom du ko signé. ah xam nga tax du ko signé moom nitu deret la nitu fitna la la jeunesse je fais appel à la jeunesse yéen la ñuy sacrifié yéen la ñuy sacrifié Ousmane Sonko deret lay laaj comme deret lay laaj nag tey leen seen doom yi te loolu le 23 janvier incha allah ñu dem voteel madame monsieur Diouf Sarr ak madame le ministre de la femme de la famille de la protection des enfants. mais tamit si tiitu leen parce que bi nga gisee boo xam ne ñoom ñëpp démb renfort nañ ko fële sa mbubb jox leen jox leen ku ne 2500 dañuy ñëw man je suis de Grand Yoff mais pourquoi ñu ñëw ba Grand Yoff di ko fa defee mënoon na ko mënoon dafa investiture am fële fee ca Mermoz fee mu dëkk Sacré-Cœur mënoon na ko fa defee. jërëjëf merci beaucoup. maa ngi leen di fay. Fatou Binetou Ndiaye. la ma waroon tey ci sa teewaay. dëkk Ngor ñëw fii si jàppale président Macky Sall ak Ndeye Saly Dieng waaw ñëw rek madame Ba jàppale si madame Ba macha allah moom moo tax ñu ñëw moo ñu woo ba ñëw fii. ñu ñëw pour liggéeyal ak moom dañuy jàppale président Macky Sall gunge ko waaw rek pour loolu la woon. démb ñu gis ñi di waa waa yeewu askan bi génn ne kii di président Macky Sall dee na suuf nañ ko kàddu yooyu noo ko gisee. ah loolu ñooñu dañuy wax rek bu deewee nañ dañ dem rek xam nga dem ca làmb ja di bàkku joge fa di bàkkoo ko gën te bu incha allah ñoom nee nañ dee na ba booba. loolu rek mooy jëf ci dégg nañ kii Ousmane Sonko tamit génn ne euh, lii di pacte boo xam ne waa DG. Ousmane Sonko moom macha allah xoolal am na lu ko doy na dem lijjanti yow li mu war a lijjanti ba na dem lijjanti li mu war a lijjanti mbir mi daal ba pare macha allah. président Fat de mission Ndeye Saly Dieng Diop bu Dakar Plateau. bu Dakar Plateau. waaw dafa waroon tey fii seen tey daal. suñu présidente ci moo suñu ministre la femme moo oote moo oo bépp femme bu nekk ci département de Dakar ñu ñëw uyusi ko ñu déglu ko dafa am moo ñu oo oo ku nekk xam naa élection yi ñoo tax ba mu te am nañu lu bëri lu ñu war a waxtaan suñu biir loolu moo tax ñu teew fii ànd ak délégation bu takku vingt dames ñoo joge Dakar Plateau deux quarts de vingt dame ñoo joge Dakar Plateau ànd ak présidente Fat Sall présidente Ndeye ak délégation bi yëpp ñu ngi fi <laughs> madame Diamanka waaw ah, ñu gis ne tey woote ngeen waaye démb ji am na ñu woote woon muy ñii ni yaa waa yeewu askan bi mhm. ba ba seen ay kàddu ñaan kii di président Macky Sall dee na suul nañ ko kàddu yooyu noo ko gisee ñooñu bàyyi leen ñu wax xamoo lu ñu wax ñu ne xanaa ge déggoo seen patron bi lu mu mu ne dee na mais comme que moom dafa bare pex pexe moom xam na ne dèjà lu muy wax wóoru ko moo tax mu naan dee na mais dafa bare pexe su ngeen koy suul def leen nii moom xam na ne mënul suul Macky Sall Macky Sall le 23 janvier dina leer incha allah. salaamaaleykum yaay. maaleykum salaam. tur bi naka la. Fatou Loum. Fatou Loum. waaw dama ah, dañuy ñaw pour sargal Ndeye Saly Dieng muy sunu ministre de la femme waaw nga xam ne ministre boo xam ne daf fi liggéey Macky Sall teg ko fi wóolu ko. moo loo tax nag mu mën ñoo bu ñu woowee ñu war koo ñëw wuyu si waaw ñu ngi topp si ginnaaw Ndeye Saly Dieng ànd ak sama délégation bi Adja Ndeye Sène Adja Ndeye Sène maire Faye Adja Ndeye Faye Awa Dior ak Ndeye fay Kumba Adama Maymuna jàllo ak Juma Faye ak Kajatu Diallo ak ak Kadida ak Rebas daal waa Rëbës ñëw nañu daal ak waa Ñaay Coker délégation Rëbës ak Ñaay Coker Dakar Plateau waaw encore ñoom Adja Fat Sall tamit délégation bi dugg si na ñu ngi ñëw yegg si nañu ba dugg. waaw def gisee kàddu yoo xam ne kii di président Ousmane Sonko génne na ko ne kii di euh, moom pacte de boo xam ne euh, lii di 3D bëgg nañ ko mu signé moom du ko signé. ñooñu daal xam nga ba ñun daal lu ñuy wax ci ñoom ndax ñun du ñu tooñ ndax suñu ki ñu nekkal yar la ñu jàngal ak teggin xam nga ñun fi nekk kooku lu ñu koy wax waxkat yi nañuy wax defkat yi di def kii moom def kat la du waxkat waaw mobilisation bi ñoom waa Yewwi Askan Wi def démb moo moo doy waar ba jaaxal leen tiital leen moo tax ngeen organisé ñun dara tiitaluñu ñun dara ñun dara feesu suñu bët ñun dara feesu suñu ñun fi ñu tegoon suñu tànk ba tey fa lañ ko teg duñ ko mës a teggi ndax ñu baax rek la ñuy àndal ca kaw ca kanam rek waaw. ñoom nee na kii kii président Macky Sall dee na ba suba suul nañ ko. xaj na ku dee mooy bëgg morom xaj na ñoom seen bopp dañoo dee. ñu suul leen ñu bëgg a sulleeku dikk ci ñun Macky Sall moom di xamuñu lu ko ndeyam boote dañ ko fi bàyyi nañ ko fi bàyyi kenn xamul lu ko yaayam boote te góor gi dee tey am ngërëmal bàyyi dara safu la dañ ko bàyyi mu dem dañuy li may wax rek Macky Sall na nit ñiy wax rek moom muy def li muy def liggéey na ci Dakar Plateau li mu def ci Dakar Plateau bi amul kenn ku ko fi def loo rek doy na waaw. asalaamaaleykum mbokk internet Wassare TV Dakar boo leen gisee fi ñu nekk nag ñu ngi ci permanence APR assisté rassemblement bi nga xamante ne jigéen bu waa euh, Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo koy def ànd ko ki nga xam ne moom madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng di dajale jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Dakar yëpp ngir daal di mën a jàppale ki nga xamante ne mooy seen candidat bi Abdoulaye Diouf Sarr euh, ci mairie bu Ndakaaru gis ngeen nag mbooloo mi takku na loolu def na mobilisation bu yaatu ak ay t-shirt yi ku nekk Fatima Zahra Iyane Thiam fekk nañ ci ki mooy euh, Papa Khadim Samb ak ay yeneen daanaan yeneen kilifa jël nañ ay kàddu yoo xamante ne ci ñoom la tukkee jël nañ koy jël à travers Univers Info TV Dakar Midi ak euh, Wassare jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen wax rek ngeen abonné wu seen chaîne préférée ngir daal di ngeen di mën a jot à temps et à l'instant li nga xamante ni moom mooy information ginnaaw bi ñu waxtaanee ak suñu papa Xaadim Samb ñu ngi toog ak nga xamante ni mooy euh, soxna su am solo soxna su am maanaa dañ koy bàyyi mu nuyoo bi jigéen ñi def tey ànd koog Ndeye Saly Diop mu ñëwee mu liggéey ci liggéey bi kon nag ñu ànd ak moom gunge ko damanteeg ko campagne ko mobiliser ko dans les 19 communes de de Dakar ànd ak moom ba gunge ko ba ca Sutay ba ak waa Dakar yëpp ginnaaw grande dame euh, donc di jàmbaar yàgg ànd ak euh, président Macky ci li nga xamante ni moom mooy euh, mandat bi mu yore Sénégal depuis 2012 donc mu ñëw tey ci li nga xamante ni moom mooy rassemblement bi faamu APR yi di def ànd koog Ndeye Saly Diop Dieng pour jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ñu bëggoon am sa première impression ci mbiru si rassemblement di leen sant di leen gërëm di leen wax ne ne dama am mbégteel bu baax a baax. Euh, si booloo bu ñu def nii autour du candidat de la mairie de Dakar muy Abdoulaye Diouf Sarr au delà mu nekk suñu càmmiñ et tout ministre la boo xam ne vraiment jox na lépp lu mu mën euh, askan bi euh, notamment si xeex mbas mi euh, gis nañu vraiment taxawaayam daw si yox yoxu si benn yoon te wane na ne moom tey bu yoree ndakaaru vraiment dinañ gis na ne euh, Dakar dina bokk si compétition grande ville internationale yi. mais yoru Dakar boobu moo ñu xaw a jaaxal ndax waa coalition Yewwi Askan Wi gis nga rassemblement bu mag bi ñu def démb y a de quoi avoir peur euh, ci côté APR. non on n'a pas ah ba nit boo boo ragalee rek c'est yow li nga doon da nga da nga kaa ñemewul. boo ñemee euh, mu nekk benn nit sax bu ñëw si rassemblement nga woote benn nit ñëw lu xamal ne ne benn nit boobu mën na tax téeméeri nit votel la. donc du rassemblement du woote xam nga rassemblement ku nekk day ñëw ñu ñu dañ kumpa yi dañu ñëw ñu ñu nekk ak yow dinañ ñëw ak ñoo xam ne dañu ñëw xool si yow si lan ngay wax lan nga mel yooyu yëpp day mbooloo daal lu nekk si nekk. Ah. donc ñun mbooloo yooyu tiitalu ñu en ah, si lan ngay wax boobu noonu laay tàbbee rek euh, laaj la sa impression par rapport ak discours Ousmane Sonko démb ndax euh, il a bien bel et bien dit que ni du signer charte de la paix bi euh, ndax fi mu ne nii dañoo toll si jamono yi heure pour heure pour heure dent pour dent ndax président Macky Sall xamul leen lu dul violence loolu lan nga siy tontu. non enfin man si sama xalaatu femme d' état parce que ñun tey état la ñu donc yenn discours yi dañ koy wëccal ku ko wax moom rek lay concerné yenn discours yi ñun tous ce qui euh, état tout ce qui sécurité sûreté et autres incha allah dinañ ko mëtal ba mu barke dara du fi am bu soobee yàlla. Euh, ñun sénégalais yi dinañ dem voté ji. tànn ku leen neex pour teg leen si gox bu leen neex donc euh, loolu moom bu leen si am benn euh, jàqare bu leen am dara loo leen si tiit incha allah dinañ Sénégal c'est un pays de tradition euh, boo xam ne dañu tàmm di voter dañu tàmm di dem scrutin ñun xale yu ndaw lañu ñu doon dem di seetaan ay meeting ak yooyu kon il n'est pas Euh, question a mën a changer président Macky il veille au grain c'est le chef suprême des armées c'est le chef de l'État il a la garantie de tous les citoyens sénégalais. il a la garantie de tous les citoyens sénégalais ce sont ces derniers mots euh, madame ñu ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga dem rek yegg ci li nga xam conseil spécial du président de la République. d'accord jërëjëf madame merci beaucoup c'est gentil. beneen responsable politique ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar ci li yaay bàyyi ko mu ngeen daal di présenté wu yaay booy ñu ngi lay. doo présenté wu. soxna Kumba Laay dëkk Yoff Laayeen parce que biñ ko defal jaar na ko te jaar nañ Saliou Diop waa Yoff ñëw nañ avec des fortes mobilisations ah derrière de la femme ba nga xam ne ko ne Ndakaaru ginnaaw bi waaye askan wi wala defee seen démonstration de ah, am na ci yaakaar Abdoulaye doomu Ndakaaru la doomu Lebu yi la doomu Ndakaaru la. te eh, Dakar yëpp ñu ci gànnaaw lébu yëpp ñu ci gànnaaw du mën a lébu yi sax képp koy voté ci département yi ànd nañoo moom incha allah fas yéene ko gunge ba ca mairie ba incha euh, ci discours paix bi nga xamante ne ci jàmm rek la ñuy dox ñun APR ah, ci jàmm rek la ñuy dox suñu président moo ko jiite di nit ku baax di macha allah te ñëpp ku Macky président ku yaruwul sax soo dendee ak moom di waaw man loolu laa wax ci moom sama xarit sama doom ndey di sama président macha allah.